Chiomb ma wala sax nag Umar Touré capitaine nekkoon ci section de recherche ginnaaw daanaka ay fan a ngi nii bokk na ci Sénégal yi nga xam ne seen tur ñoo gën a fës waaye tamit jib ci li nga xam ne moo di doxalinu Sénégal waaye tamit rawatina lépp loo xamante ni moom moo tukki ci wàllum actualité. mu ne de ay fan a ngi nii ñu bëree bëri umpale woon nañ turam waaye fu mu toll mën nañu jàpp ne bokk na ci nga xam ne nii ñoom lu ñu gën a nemmeeku ne seen tur daal dina fës biir Sénégal. la ñu mën a jàpp tam ba jàpp ko waaye tam mën ci bàyyi xel te daal di ko ràññeeku mooy que ni moom bi lay di Omar Touré fu mu toll nii bokk na ci nit ñi nga xam ne daanaka ñu ngi bu baax a baax. tey jii mu bokk ci ñi nga xam ne daanaka ñu gën a fës lañ ci actualité tax na yéenekaay bi lay di su l'observateur daal di dellu si waat yaatu yaatu ci lu ñëwaat doxalin waaye tamit njàngu ak la nga xamante ni moo di performance yu la di la jëmm daal di amal Omar Touré nekk bàyyi am lu toll ci ñaari bant akub soxna. at fanweer ak ñaar moom bi léegi nga xamante ni lu tollu juróom-ñetti at daan na ko def ci gendarmerie ñaari at yoo xam ne amoon na ko ci section de recherche ñu bari ci ñi nga xam ne ay jege ñaalem lañ ñoom la l'observateur dal di tendre li nga xam ne moo di micro ngir rek ngir yàbbi ci doxalin waaye tamit jaarani jëmm joojule moom Omar Touré mi de nekk nit koo xam ne daanaka ñu bari xamuñu ko woon wala xàmmewuñu ko woon waaye fu mu toll nii tigi le contraire moom la ñu daal di am. fu mu toll nii mën a jàpp mooy que ni démission bi nga xamante ni daan na ko dicteur dimanche juróom-ñaari fan ci weeru mars bi ñu weesu ci section de recherche yi mu mel ni koo xam ne ab héros la boo xamante ni officier bu amoon ab taxawal ngir rek jàmmarloo ak li nga xamante ni moo di ay liggéeykatam ginnaaw mu dalañ di xam ne day tekki ndombal tànkam ci li mu ko fësal moo di nii la mu jàpp mooy moom daal joxatuñu ko àq ak yelleef ba nga xamante ni moom daal di sàmm. lépp daal di tukkee ci la nga xamante ni moo ñëwal mbiram ci section de recherche ndax la mu jàpp mooy que ni dañoo trahir àq ak yelleefam rawatina doxalin bi nga xam ne moom lay amal mu nekk loo xam ne jàpp nañu lu métti métti la ko ndaxte du ab délinquant wala keneen ak keneen waaye ab doomu Sénégal boo xam ne moo ngi yëngatu waaye tamit mosul trahir wala muy def loo xamante ni dëppul ak yoon kon du mën a nangu benn yoon rek ñu daal di salfaani li nga xam ne moo di àq ak yelleefam. ñi nga xam ne daal dañu yëkkati seen ay kàddu daal di ko wax mu di ay xaritam ginnaaw bu mu defee ab publication ci page Facebook di xam ne day daal di tekki ndomba tànkam moom capitaine bi de am lu toll ci fanweer rekk ñaari at daal di am ab taxawan waaye tamit fekk baax fa nga xam ne moo di ca diwaanu Kolda way juróom bu góor di wuyu ci troupeer Ababacar Touré militaire bu nekkoon à la retraite waaye tamit di confier ki nga xamante ni moo di ay frère ci li nga xam ne moo di ci doxalin yooyu ginnaaw bi mu daal di quitté fa nga xam ne moo di Bassoum région bu Kolda fa mu fekk baax ñëw rek fi nga xam ne moo di ci wàllum njàng ak njàngale fa nga xam ne moo di Salékegni foofee mu intégré li nga xamante ni moo di CI daal li nga xam ne moo di njàngam waaye tamit nekk ki nga xamante ni ku ràññeeku la ci wàllum njàng ca fa mu nekkoon daal di jàdd fa nga xam ne moo di Bagdad ji mu nekk li nga xamante ni moo di toujours ci père adoptif am bi nga xam ne moo ko yor ci boobu boobule localité. waaye tamit CFEE bu mu ko amee en poche Oumartour ñu orienté ko ci collège Dabo foofu mu amee fa BFEM waaye décroché li nga xam ne moo di baccalauréat ci lycée Alpha Molo Baldé bu Kolda ak mention bien nekk brillant élève waaye tamit daal di fekk ci fi nga xamante ni moo di ci daaru ji kawe jële moom nag mu ngi nekkoon nit boo xamante ni ay classes yu bari da ko daal di doublé ci élémentaire am waaye tamit laalaa ndax maîtrise bi nga xam ne amoon na ko. père adoptif am amal ab témoignage bu am solo nee na daal ni ku diñ la xam ku rigoureux waaye tamit ku am li nga xam ne moo di yaxin ci wàllum liggéey faculté université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fac de droit fa mu dooree jànkam nekk nit boo xam ne ku ràññeekul ak ambition ba nga xam ne amoon na ko réussite bu mat sëkk waaye volonté boo xam ne moo di rek ndax réussir lépp loo xam ne daal dina ko tiim jëm ci wàllum jàng ak la courage bu mat sëkk Omar Touré di la boucler li nga xam ne moo di licence am ginnaaw at yu mu tegle foofu le foofu le ci fac droit waaye tamit administration juridique banque régionale bu marché bi nga xamante ni daal na ko réussir mu di promotion fac bu droit daal di ci rappel teg ci ne moom moo di rigueur dëgg la amoon ci liggéeyam waaye tamit promotionnaire yi nga xam ne daal na ci bokk mu di Modou Mamadou mu di Mouhamadou Makhtar Cissé nekk promotionnaire am bu njëkk LMD maanaam licence master doctorat di xam ne mu ngi xam ni ko xam ne ku digne la ni ku sérieux ku am rigueur waaye ni ko xam ni ku respecté doomu aadama waaye tamit yëg li nga xamante ni moo di yëg ñu doomu aadama loolu tam daal la ci bokk ne maanaam discours bu am solo bu courtois rek la daal di yëkkati te foo ko fekk moo ngi reetaan gis lu ko naqari yomb lool bu mel ni capitaine bi li daanaka ndeen na ni koo xam ne ku ràññeeku la waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di ay jege ñaalam jox ko cër bu mat sëkk capitaine Touré niki jeudi 3 mars jeudi le moo ni day moom xaaritam jàpp nañ essayé nag ngir jéem woo waaye boobu sax mooy nekk nga xam ne moo njëkk a yëg boobu la xibaar waaye dafa manqué li li di appelam ginnaaw bi ma ko bàyyi la message mu ñëw waaye fekkewu ko mais teewu na la nga xamante ni sàkkoon na ko ci moom daal di ko fas yéene rek moo di waxtaan ak moom waaye loolee mujj ko réussir li nga xam ne mën nañ ko jàpp ba jàpp ko ci mooy que ni moom daal nekk na nit boo xamante ni ëkku ràññeeku la waaye tamit koo xamante ni ëkku mu respecte la ndax dendoo bi nga xam ne amoon nañu ko ak cir bi nga xamante ni jox na ko ko. ba léegi leneen loo xam ne Omar Touré en 2009 mu ne moom daal jàpp na ni ñoo nekkoon pavillon A moom Chérif Baldé ak nga xamante ni moo di Omar yi waaye tamit kili di Chérif Ba moom tamit daal di jàpp ne xaritam boobu la ab gendarme bu mérité li mu am la te jàpp na ne tamit rigueur moo ko dal di yóbbee wala may ko li nga xamante ni moo ko may sax mu yëgg ba ñaari at mu nekk li nga xam ne moo di capitaine foofu lay ci section de recherche leneen lu mu nemmeeku moo di ne daal. discipline ak rigueur bi nga xamante ni dina koy am ci wàllu liggéeyam mu koy saluer mu mel ni jëmm ji ni mel ñu bare bari ci ay jege ñaaleem rafet na ni ñu bu baax a baax taxawalinam waaye guddi ñu toll nii tey jële bu mu fësale ni ci lay dem foofule ca diwaanu section de recherche yi ngir delloo bopp ngir jébal boppam li ni jeexital la war a mën a am waaye tamit lañ ci war a gën a mën a nemmeeku mooy ndax daani ko teg ay daan moom daal ci kàddu mu yëkkati mooy que ni bu fekkee dafa juum nañ ko daal di rek teg ay daan waaye luñ ci mën doon mu ngeeg jàmm ak salaam wér sëkk lu ko mënti daal nañu jàpp ni ci bërëb ba mu dem la